man dama doon wax sax ne président Barrow war na am adviser laago sax Sénégal sax dañ def loolu beneen laago maa ngi koo gis adviser la ba Macky Sall la ama loolu lu war a am la am nga because of ñun ñoo war gën a nekk si suuf ñun ñooy ñun ñooy man wax ko ne ñun ñun ñooy di laas dot am nga si développement lu ñoo lifin rek ñun lañu ñoo mujjee tànn ñu ñu am si wàlla xam nga te loolu warut ñun ñëpp ñoo am si réew mi dañu war a émale ñun ñëpp nga ñu yem